salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani wa safar salaatu di am mbégte ci ànd ak yéen ci émission bi xaj na ci waxtaan wi naa wax ñu leeral lan mooy daayira Moukhaddamatoul Khidma ak lan mooy ay liggéeyam ak waajtaam ci màggal gi ñu ko defee waaw daayira bii di tudd mu xam ne xidma daayira boo xam ne nii ñu ko sos doomi dëkk bi lan di deret sëñ bi di ay taalibe di bokkoon fu nekk di jàng xam-xam ci kasi af bu su imam biñ jàngee xam-xam yàlla dogal seeni xel ñun léegi ñun sëñ Tuubaa lu muy defal lépp ñun nag lu ñu ko war a fayee ci liggéeyal ko ndax liggéey dafa war ci leen amee xelum ñu jumaa ji ndaxte jàpp naa ñi xam jumaa ji mu njëkkoon xam nañ ne jumaa ji li fi nekk mënu fa la ñàkk ci ay taxaw ndax booba xawoon na doy waar lool ci ab jaxasoo ak ci ay ñàkk a wormaal barab bi carrément ñu amandoo dem ci a Seex Saalihu Mbàkke waxtaan ak moom ci loolu ànd koo sëñ Mutalib Buso Baay Njaaña Buso sëñ Afiya Buso biñ demee wax sëñ Saliou Mbacké ci suñu bëgg-bëgg bii mu rafetlu ko teg ñaari kàddu bu njëkk bi mooy ab denceloon boo xam ne yàlla mën na ko suñu taw mën na ko denceloon ñaar ba mooy mu tudd leen daay xase bu rëy boo xam ne nii ci julli salaa salaam da cee def lu rëy rëy muy mu xadamatul xidma ba pare jox ñu ab liggéey nag nga ñu na ngeen dem jumaa ja taxaw àjjuma ci tàqale góor ak jigéen. muy set tey xay tey xeej lu neex xam nga loolu moo nekkoon mission xidma ci biir jumaa ji loolu mu ngi nekk 7 mars 17 mars 1994 moo nekkoon liggéey boobu liggéey boobu tamit ginnaaw ba daayira bi ñaari demaat Sëñ Saaliw ñaari yoon liggéey yi des lépp ci xidma ak Cheikh Saaliw Mbàkke moo koy xalaatal boppam yónnee ko ba ci njëkk mooy julli ayit yi julli ayit yi moo nañu na ngeen taxe ba julli ayit ni ngeen taxaw àjjuma yi yokk ñu sonorisation bi ba ñëpp du ko dégg moo indi woon ci xitma chaque julli ay timis ñuy jubante nit ñi ci toogaay yi ak nekkiin bi ba ñëpp jigéen ñëpp féete sowwu góor ñëpp féete penku niki noonu sansem piil yi am ci jumaa ji ak ventilo yi ak toppatoo yooyu tut benn waaye boo xam ne ni moo fi jaaroon doon jëm ko Sëriñ Saliou Mbacke fekk jumaa ji xaw a mi jamonoy jamonoy fas jamonoy koor weeru fee ñu war a woor ci ma ñu xaw a xaw a mu dem di ko sëñ Saaliwu waaye dëppaat fekk lépp di leer sëñ Saaliw jox ñu ndigal ci ne na ngeen toppatoo jumaa ji ci wàllu leeraay ak ci wàllu uppukaay yëpp may nay baax ginnaaw bi mu yokkaat bay liggéey muy tere mi tere njaay mi ak wecceek mu manqué ak oto yi wiraas jaar ci pénc mi ak seret yi ak ñi jotaay ci biir pénc mi di waare te liy wax leerut ci ñoom wala ñuy géew di diwaan ñu jox ndigal ci ñu tàqale ko pénc mi ba penc mi mel ni war a mel ni ki noonu mu joxaat beneen liggéey tamit ci wàllu saytu jumaa ji tamit ci am njaay ak këram ginnaaw liggéey boobu ñu amoon beneen gisaat gis-gis bu amoon mooy bu ni xutba ajjuma di waar nit ñi ci seen jaamu yàlla ak seenu topp ndigal ak xuppe sawara ñëpp ci nit du duñ xam ne imaam imaam li muy wax ñu wax ko ko mën na ñëw na doxal aw waxtaan loolu moo indi ci mbooleem jumaa ji jumaa yi murid yëpp ñu roy ci jumaa Tuubaa ci def ay bayaan njëkk ñuy commencé julli gi ngir leeral jullikat yi ak ñi ñëw ci jumaa ji lan la imaam bi bëgg a wax ak seeni farta jëmm kadaalika naka liggéey bu armeel yooyu armeel tamit moo ñu woon benn bis daan nañu daa bëgg ñu taxawu bu baax armeel yi ñi fa nekk ñu teggal leen ci seen wàllu diine nu ñuy sange nu ñuy sange ba ku ne xam ko wàccoog ndigal yi nga xam ne moo war a nekk kadaalika liggéeyub koor gi ay mbokk taalibe ñoo jëm ci moom di waxtaan ak moom ci ni Makka ak Madina def koor ci ay ndogu ay waxtaani diine taxawu way julli ci biir daara ji jàkk ji jëmane koor mun nañu na ngeen ànd ak ñooñu taxawe ko dëgëral ko ba jumaa ji mën a wàccoo ak ndigal yooyu ñëpp nga def tam nekk jumaa ji set du am benn taq-taq loolu Sëriñ Saaliwu séqoon nañu ab liggéey def ko mat sëkk ginnaaw al Sëriñ ay baara yokk benn liggéey bu am solo muy xam ngeen ne màggal damuy def invitation yi ñu ñi ñëw ci màggal gi te ñoom kat nekk ay gan yoo xam ne Sëriñ Tuubaa bu doon nekk dafa nekk dafa nekk jamono ci saahir ñooñu ay gan lay doon muy chef religieux yi ak kilifa yi waa daayira bi muy xidma bi mooy taxawu mbooleem hébergement boobu moo leen dalal moo leen ak yi ban teew ci màggal gi ba delluwaat ginnaaw ba asi simxtaar yokk ci liggéey ba liggéey bu am solo muy mm, taxawu armeel yi yi ginnaaw bi ñu tëggee armeel njëkk yi jox ñu digal ci ñu ñu taxaw nag saytu li nga xam ne mooy liggéeyu armeel yu yu bees yi muy baaxee ci mbooleem taxawaaya ci mbooleem saytu ba ci mbooleem wakkar ba yii mooy liggéeyu xidma ci biir penc mi ak biir jumaa ji mooy biir jumaa ji penc mi ak armeel yi muy osul njëkk yi daaru ma ak euh, baqia baqia mu ji loolu mooy liggéeyu xidma ci ay tâche yi ngi koy jox ci jumaa ji ak penc mi waaw wàccaay maag dem séance ndax màggal xam ngeen ne trait bi suñu ci njaay mi wecc mi manqué borom caméra bi yu foto fi mu amul ndigal fi nekk di xotti war may penc mi nekk fi di waare te nga wax xamoo ki dara da taxaw loolu ci màggal gu ba jumaa ji kuy ñëw mën a ziyaara ziyaara bu jaar yoon def say julli te du am benn benn benn gàllankoor wala wala benn yàqu-yàqu mas mi ñëwee tamit danoo yokk taxawaay rek waaye dara changé wu ci xam ngeen ne daayira bi may may wax nii bi mbas mi duggee ci Afrique ba tey ñii mboolem jumaa yi di doon tëj ngir ñàkk mën a taxaw seen i jullikat waaye jumaa ji mu tëjul benn yoon. ci màggal gi ba tey ma ne ma ne liggéey ba ñu daan def ci jumaa ji naka jekk ci mboolem bisim jumaa ji la ñuy ci waajtaayu màggal gi. nee naa la coronavirus bi muy mbas mi ñun fekkoon nañu ñoon taxawul jullikat yi ak jumaa ji di aar ñi fi dugg si ba ku fi dugg si ku ne. laal bunt bi nga raxasu baa nga laal gel takk masque booy julli bi nga soree sàppe yi ni ko yoonu médecine waxee bi ñëwee màgg ba ko yokk rek dana yokk matuwaay la yokk rek pour groupe boo xam ne nii dañ taxaw ci bitti di saytu ñuy dugg si bu njëkkoon na naan na rangi gaaw na rangi mi gaaw ren na dox bi def ndànk te soree te kuy dugg nga raxasu baa nga laal alcosel raxasul baa nga sa maska doxal ndànk dem ziyaare coow yi ñu wàññi ko ci biir jumaa ji ndax luy teggin ak yuuxoo yi ak dàq bi defee ñu dugg ci julli baa ñu dugg ziar par group barab bi xam na lu mën jël ci ay nit dañ koy xaaj ñetti xaaj dugal ab parti ñu def seen ziar génn dugalaat ñeneen ñu génn waaye duñ tegale ci biir ba muy fees mu njëkkoon li ma wax nag moom valable ci mboolem barab bi wër jumaa barab bi biir jumaa jépp dara ko saytu ba nit ñi mën a dugg ci jumaa ji ba barab bi yëpp ay ubbeeku barab bu ne mën nga faa dugg boo coog sàtti bunt ba mooy takk sa masque raxasu ba nga laal zel dem ci sàppe ya da njëkkante def ndànk boo duggee mën nga ziyaar sa ziyaara ba na mate nga génn dem xam ne kuy dugg du fi indi jàngoro kuy génn du fi indi jàngoro seet loolu moom yaakaar naa war naa moo jiitu mbas mi loolu yàgg na ngi mi sëñ Saliou Mbacké lañu waxoon nañu na ngeen sàmm bu baax jumaa ji ak ñi fi ñëw di photo bàyyi filmé loolu ndigal la woon ci histoire bu gudd gudd moo tax jumaa ji du nangu clip nanguñ ko fi nekk di def foto yoo xam ne nii day xotte war ma ji misaal man ngaa ñëw photo jigéen ak moroom jigéenam photo bu moom bu réglé waaye bul ànd ak góor di photo doon sa rakk la doon sa sa borom ka ndax lan loolu image bi fi mën a àgg tontu mënu fa àgg kon moo tax ñu koy moytaloo waaye mas na photo nag ci leeral gu leer nañ léegi man ma ngaa leeral ki nga nekk ci jumaa ji xew xew bi bam mu comprendre may la loolu bu dee ku yor caméra la ak koo mën muy télé muy ab site muy rajo danaa la ñëwal ci communication bi nga toog wax li nga bëgg a def noo koy defee koo koy àmbal ndax jumaa ji nag duñ bàyyi kum neex rek gar micro di waare kon nga dégg loo xam ne nii dégguwut bañ def loo xam ne nii defuwut bañ wax loo xam ne waxuwut ndax xam ne lii ay site ci Sénégal gii buñ bàyyee ñëpp mu ñëpp ñu am waxkat yi mën a wax dëgg mën a wax lu leer lu mën a wax lu mel ni muy dégg am ñuy yokk am ñuy wàññi ñu bëgg nag ku jël jumaa ji ab ab image wala ab son foo ko tegee dolli islaam war ma dolli murit gi war ma dolli sa bopp war ma ndax nag bëgg nga tey mi mu wane war ngaa wane lu lu jaar yoon loo xam ne koo xool bëkk yow waaye bu la bàyyee nga ramassé rek wane ay ñuy dàqe fee wala ay góor a jigéen loolu day yàq image ñi ba pare day am luy wane day wane Sëriñ Tuubaa kon Sëriñ Tuubaa li mu liggéey li mu liggéey boromam wuute naa ñi koy wane ñi koy wane loo xam ne nii day soreek moom ndax jumaa ji aayuwul kenn film aayuwul kenn dawal daan dàq génne ab drone teg waaye nga am sat boo ko deful nag foo jaar ci biir jumaa ji ndax juróomi téeméer nit ñoo ne jumaa ji yun gis yu sol blouse ak ñoo gisut ak ay policier ak ay sapeur ak ay civil ci ci wàllu kii ñooñu ñëpp nag dañoo ànd ak xidma bi ci liggéey bi di déglu kun gis nga yoroo carte d'accès walla boog yaa ngi def loo xam ne wut na jumaa ji ci ay ndigam dañ teg ci yoon loolu mooy ndigal yi nga xam ne ni laa bëggoon leeral ci liggéey bi. juróom juróom-ñetti bërigoo li wër penc mi ay 5000 litres wala ay 2000 litres ñu ngi waajal ñu juróom ñeenti bërigo yoo xam ne nii day denc ndox ci biir jumaa ji ngir ndox manqué waagal nan 37 bërigo yoo xam ne ni moo wër mooy moo wër penc mi bu ñetti bërigo waagal tamit lu toll ci. Euh, euh, deux deux cent cinquante mille masques ci ti masque tissé deux cent cinquante mille masques ci masque chirurgical euh, yi waaw cent paquet gants ndaxte dañuy contaminés bi ci am ci weñ yi dañuy sóoraale ak ay ay wàccuwaay yoo xam ne ni nit ki dana mën a dugg ci jumaa ji saa bu bëggee set muy set mais ñoo am ñu koy pomp ba pare sàppa yi di soree xam ne saa bu ñu jullee ñaari waxtu yu ne wala boog jullee gu moroom mu ne dara mën a def pompe boo xam ne nii dana rey lépp luy jàngoro ba ñu julli si am jàmm duñ indi feebar ñu yokk feebar loolu nag xel maa ngi mu loxo ñëpp ordre de savar rek madaar ak loo am te yàlla tax mën nga jox yàlla tax soo ko indee defal ci liggéey bi macha allah. waaw maa ngi sant baax di leen ñaanal 24 euh, euh, actu ci sët yi ëpp audience waaw te gën wàccu ndigal yi wasalaam.